ganuk sëriñ Massiré Lo ga fasano si mano si ko xibaar fi waa wuro sanna la bamba woore weeru kooram wa foofa la fay jaana maak tàngoor wa ca laylatul xadiri bamba naa leen waa munkir ak nakiru xàmmee nanu leen ca laylatul xadiri bamba naa leen waa munkir ak nakiru xàmmee nanu leen asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bés bañ doon séntu mi ngi ñëw kañ la juróomi fan ci weeru koor lu xew sànnoo si la xewe woon keroog ba fa Cheikhul Khadim yegsee di juróomi fan ci weeru koor ànd koog sëñ Siré jiite naa fi la ya ba koor ga jeex mu jiite leen itam ja def fa xutbaa bu rëy ba bés boobu nag moom la ñuy waajal bu ngeen geesoo gis alaaji mbay njaay sànnu sanwet xam ne bés boobu la ñuy waajal moo dikkaat di ko def nag bés boobu ci ndigalu cheikh cheikhul xadim di sëriñ muntaxa mbàkke basiru mi xalif général des mourides ak ci ndigalu kan sëriñ maam moor di xalifam sëriñ masamba mbàkke ak kan sëriñ chérif loo di xalifa sëriñ siré loo ak kan sëriñ xaadim loo di xalifa sëriñ loo ca Diourbel ak kan Alaaji Lo di chef de village yu Sànnoosi ak kan Serigne Sànn Lo mi xalifa Serigne Arif Lo ca Sànnoosi ak kan Ajaratu Sey Lo di xalifa Serigne Arif Lo ca Mbakke ak kan Serigne Daam Ndiaye di xalifa Serigne Maajoor Ndiaye ak kan Serigne Mbàkke yu fay di représentant xalifa général des Mourides Dakar ak di ko wër Alaaji Baara Gay administrateur de société ak kan Alaaji Yuusu Yadd administrateur de société ak daayira Sànnoosi yëpp daayira Njeyeen yi daayira jàppaate yi daayira Kër Mbaalo daayira Ndaam Moor daayira Sëriñ Sànn daayira Dakar daayira Italie daayira France invité yi nag kañ ca jiital waa Sànn jiital ko ca mooy le président la république Macky Sall moom la woo ak ministre intérieur Antoine Diome ak gouverneur de la région bu Louga ak préfet Kébémer di ci woo sous préfet Kébémer mi nga sous préfet Sagata muy Babacar Sadikh Ndiaye mi nga xamante bi gan ñëpp ay garam lañu ak kan Abdou Aziz Fall di maire Corom Fall ñoom ñii ñooy séentu gan di ak kan Cheikh Ngourane Seck di maire Ngourane ak Khalifa Babacar Dia di maire Géoul muy Ngumba Géoul ak kan Assane Sall di meeru Kaneen Njobbe ak maître Madické Niang ancien ministre di avocat Serigne Bamba ak kan président Pape Diop bokk gis-gis ak kan Serigne Buub di meeru Kaolack ku ne xam ko waa Sànn ak kan alaaji Papa jaañ grand Serigne de dakaar di doomi alaaji Bassirou Diagne Madame Diop ñëpp xam ko waa Sànn ñu ngi koy woo ci bés bi bés bi bés ba ak kan alaaji Cheikh Gumbala entrepreneur bi nga xamante bi Sànn fa la dëkk sànna na ko xam-xam alaaji Cheikh Goumba la xam ne sànna naam rek la kon moom da ciy woote kon ñu ngi ciy woo baax a baax alaaji Cheikh Goumba la mi borom na ak Alain administrateur kërali kërali building di ci woo Ablaye Ndiaga Samb administrateur CPI alaaji Moustapha Tall opérateur économique ñu ngi ko ciy woo alaaji Cheikh Cissé président UNACOIS Yeesal ñu ngi ko ciy woo alaaji Moustapha Sey di PCA PAMECAS Aliou Lo administrateur lobbu maam jaara di jàmbaar ku ne xam ko ak kan maam góor jaañ cey cey kon daal bala ñoo sori ci tim yii nga xamante bi dañ leen a woo pare leen bés bi ñu ngi jox kàddu gi alaaji mbay njaay sànnoosi mi nga xamante bi non ñu ngi koy jox alaaji baara njaay ñu ngi jox kàddu gi alaaji baara njaay mu yëkkati ci ay kàddoom kon baara yéen waa sànn ana bés bi nu ngeen koy waajalee joxal baara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم بارك برنتوا asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ci ndigal Cheikh Ahmadou Mountakha yàlla fi yàgg te ànd wér waaye sëriñ Serif Lo xalif sëriñ Serif Lo Sànn sëriñ Mamoor Mbàkke xalif sëriñ Masamba sëriñ Xaadim Lo Njaareem sëriñ Xaadim Lo kër Cheikh Ahmadou Lo Issa bokki jullit bokki taalibe sëriñ Saalihu Soxna Lo Touba Daru Njeen alhaaji Mbay Njaay Masaalikul Jinaan alhaaji Mbay Njaay Baay Fall Sànnuusi mboolem président yi nga xam ne ñoo ànd liggéeyal sëriñ Touba ca Daru Sànnuusi ñoo joxe ndigal tey ji ñu taxaw bis bi euh, sunu président sëriñ Mbaala Njaay Daru Jappat Ousmane Njaay France Serigne Dame Ndiaye ca dëru jàppat waaye nekk di àddoo Italie waaye sëriñ Cheikh Faty Yàlla sëriñ Aada Ndiaye waaye sëriñ Cheikh Assane Ndiaye ak mboolem ñoom xàndal ca Touba Gambi waaye suñu bokki kër mbaalo yi bokki kër bi ne bokki xëli bokki japat bokki ndaam sànnoosi yëpp ñoo ngi ànd ak yéen di leen fàttali bis na war ngeen a sant tab ngeen aljaan bis boobu la woote noo ñaan ñëpp nag di fa teew te indaale

Fall tubaa RTS ñëpp rek ñu ngi leen di woo ñëpp rek bayuñ kenn bay ñu fenn góor jigéen mag ndaw suñ bokki soxna yi nañ ko daan doxale ku ne xam ne ne waañu metti na takkoor la kon ñu ngi soñu góor soñu jigéen soñu mag ndaw kon ay ca murit ku fa jëkk gën ku mujj ëppale ay ca murit waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Bara Ndiaye Bilal barakaatuhu ñu ngi leen di ziar mbokki jullit yi mbokki taalibe yi di leen jaajëfal ci teewaay bi di yëkkati suñ kàddu ci ndigalul sëriñ Serif xalifa Serigne Siré Lo di ñaan suñ boroom mu yàggal ko fi lool sëriñ bi mu ngi commencé ci ay kàddoom ginnaaw bi mu jotee ci ndigalul Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides ci màggal bisub Sànnoosi ñu baaxoo di ko def ci juróomi fan ci weeru koor ci bés bi nga xam ne moom la Cheikhul Khadim ñëwoon ca Sànnoosi ginnaaw ba mu jógee ca tukkeem ba sëriñ bi nag ci biir woote boobu ànd na ceeg ay mbokkam ak ay dëkkandoom ku ci mel ne sëriñ Siréloo sëriñ sa sëriñ Sànnaloo ca Louga sëriñ sëriñ Loo ca Jurbel waaye ànd ceeg ku ci mel ne chef de village alxaaji loo ànd ceeg mbooleem daayira yi nga xane ñoo bokk ca sànn te baaxoo di ñëw ca dëkk ba di màggal bis bi ku ci mel na ndam lu ci mel na ndaam moor ak jàppat ak njëyeen ak mboolem yeneen dëkk yi ko wër sëriñ bi mi ngi leen di soññaat di leen ñaaxaat di leen xamal ne bis boobee day yéen la ko bokkal comme na ko maamam ja doon defe ba ko seexul xadim fekk see ca dëkk ba nga xane mboolem dëkk ya ko wër danoo ànd ak moom ca mbégte moomee ak ngan ga diirub la fa sëñ ba toog mu ne mobilisation boobee nga xam ne gisoon nañ ko ca suñu maam mi ngi sàkku ci mboolem taaliba yim ko bokkal ak mboolem koo xane ne rek bokk nga ci umma islamique ñu ñëw bokk kook moom ca mbég moomee muy màggalu Sànnoosi ci juróomi fan ci weeru koor mi ngi woo ñëpp nag ñu def ko comme nan ka daan defee ginnaaw loolu nag kenn du wax Sànnoosi te doo wax yoonu murit kenn du wax yoonu murit te doo wax Sëriñ Tuuba kenn du wax Sëriñ Tuuba te doo wax senegaal loolu waral sëriñ bi di wax ne mënu cee génne président de la république Macky Sall ak gouvernement bi yëpp di sàkku seen teewaay ca bis boobee waaye tamit di sàkku seen taxawaay ca bis ba comme na mu ware loolee nag dañ koy jàllale jaarale ko ci ku ci mel ne monsieur le maire Aziz ak sous de Sagata ak euh, le maire de Kébémer euh, le le préfet de Kébémer waaye aussi gouverneur u Louga kon sëriñ bi daal mi ngi ñaaxaat ñëpp di soññ ñëpp di sàkku ci mboolem koo xam rek taalibe sëriñ Tuubaa nga waaye mboolem koo xam rek ab jullit nga nga teew ca bis boobee ànd moom ca ngan nga ànd ak moom ca xéewal ya di ñaan ci sëriñ Tuubaa mboolem. Euh, natt yiñ ko tegoon ba mu jógee ci euh, ba mu jógee ca tukkeem ba ñëw ca sànn nga xam ne toog na fa weeru koor woo xam ne liberté totalam la fa am amul fenn foo xam ne jëmee nañ ko fa naan ko toogal fii wala demel nii mi ngi sàkku ci Serigne Touba ak euh, yonente bi sallallahu alayhi wa liberte liberté googee mu amoon ca sànnu si nga xam ne moom la fa moom la njëkk a am weeru koor woowee la ko njëkk a amee toog weeru lëm te gisul kenn ku ne ko jëmal fii mi ngi saaku ci mboolem jullit boo xam ne teew nga fa yal na la sun boroom defal tawféex may la liberte googu fii ci àdduna waaye tamit fële ci àllaaxira ñi ngi yamale foofu kàddu yi rek pour bañ a guddal wasalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibé murid yi maa ngi leen di nuyu jël na kàddu ki nga xamante ni moo yor euh, jël ki nga xamante ni moo yor kàddug Serigne Touba ci ndakaaru muy alhaji Mbàkke yu fay représentant xalif général des Mourides ci ndakaaru ak li ko wër barab bi nu toog nag di Masaalikul Jinaan kon ci turu Masaalikul Jinaan su ma tuddee rek Serigne Moussa Bane mi ma deddal ak Babacar mbay mi nga xamante ni ñoo jëloon kaddu gi ajaratu Gammu Jóob mi nga xamante ni moo ànd ak soxna yi te toogee na le kon su ñu tuddee rek mel na ni kon Masaalikul Jinaan gépp ñoo tax waaye ñun lu ñuy woote Sanosi fan mooy Sanosi région de Louga fan mooy Sanoussi département Kébémer fan mooy Sanoussi arrondissement Sagata fan mooy Sanoussi communauté rurale wala mairie bu Calom Fall barab boobee nga xamante ni ca la Serigne Touba jógee ci géej gi juróom-ñaar ak juróom-ñetti weer yi jóge Ndar nag ñëw agsi nag fii nag ci Sanoussi juróomi fan yi koor ga waaw lu Serigne Touba wax keroog Siré ana fa mooy dal Serigne Siré génn néegam sëñ Maajoor Ndiaye maam yi Mbay Jaay mi moom it génn néegam jox sëñ Siré bis boobee nag Serigne Touba andi. yu taale bu mag ba ni yéen waa Sadna tabbi ngeen aljana ku bëgg a tabbi aljana bokk waa Sadna ñëwal koo xamante ni mun ki rek nag ki ragal nga ko ñëwal sànn bis boobu nag la jëwriñ mbàkk yu fay woo fédération daayira yëpp ci li euh, ci taxaw nga xamante ni mooy mbay jaay waaye bu ñu nee mbay jaay sa day dem ci asko dem association des commerçants et délégués marché du Sénégal mu yor ko kan mooy mbay jaay mooy ki nga xamante ni lépp lu jëm ci Masaalikul Jinaan ci wàllu organisation bi jëm ci togg lépp moo ko yàlloo ne ànd ko ak ñi mu ko war a àndal kon nag mbay jaay moomu nag tey moo daan jël kees yi ko ci marché yi kon jëwriñ nee na comme dama bëgg nag ñëpp dikk sànnu si jàppale Mbaye Ndiaye ci bis bi nga xamante ni Sénégal ko moom bis bi nga xamante ni Afrique ko moom bis bi nga xamante ni yoonu Mouride ko moom muy Sanofi kon nag maa ngi woo ci turu jëwriñ Mbackiou Faye mboolem daayira yi ci dakaar ak li ko wër la tàmbalee Wakaam ba keroog ngay dem Sangalkam ñu benn daayira bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn bàyyiwuñu ñëpp la ñu woo ndax ni Mbaye Ndiaye mel ci bis boobule kon nag maa ngi woo marché yi su ma nee HLM a ngi nii. wax dëgg yàlla marché yooyu war nañu bàyyi xel mbay jaay waaye fii nag ci Colobane nga xamante ni Serigne Baara Amar sunu doom ju baax ji moo ko yore te bëgg loolu Mbaye Ndiaye nekk moom ci ginnaawam kon yaakaar naa ni kon waaye nag bu ñu dee ba Gueule Tapée nag ba gël ba tàngee ba maye na ci tàpp tànkam ba lépp taxaw kon muy Gueule Tapée war boo naa na fédéral waaye nag fàtte woo man ti leen alaji tala ci waaye fàtte wut nag marché sax dëgg di woo nag mbooleem taalibe yi mbooleem jullit yi ci bis boobu nga xamante ni nag mooy sanoo si juróomi fan yi koor ga yàlla ci yàlla yóbbu ak jàmm te ñëpp waajal ko ndax mbay Ndiaye kat jar na ko Mbaye Ndiaye dox na ko Mbaye Ndiaye wax na ko waaye ajaratu gàmmu Jóob ak ñi mu àndal ñëpp waajal nañ ko incha allahu ñoo ngi ñaan nag ci darajey sëñ Tuba tàmbali ko ci bisimilah àggale ko ci alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ Modou Mbaye Samb soldaaru sëñ Bamba waaw asalaamaaleykum mbokk jullit yi asalaamaaleykum mbokki taalibe yi maa ngi yëkk sama kàddu nag ci liggéey bu mag bu tedd bu nekk suñu kanam muy siyaar bu baax sëñ taxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba lépp li mu sémb ci lislaam ñu ànd ko ak moom te borom Tuubaa waaye noonu tam laay siyaaree sëriñ Mamour Mbacke ibnu Cheikh Massamba Mbacke di ko ñaan moom tam yàgg fi loolu te wér ak moom tam lim semb lépp mu àggale ko te ñu ànd ko moom barke borom ak bépp jullit noonu tam laay nuyoo yoonu Baye Fall da ko tàmbalee ci kilifa ba ci kër gën ci suuf maa ngi nuyu góor ñi di nuyu jigéen ñi di mag mag ak ndaw tey noonu fii di waajal màggalu Sanoussi mu juróom fanu koor li war a wax lépp nag ñi njëkk a wax wax nañu ko. man li ma ci dolli mooy Serigne Touba fu mu julli ñaari rakka faj na aajo ña fa ña fa nekk ak ña ñëwagul Serigne Touba ñëw na ci Sanoussi juróomi fan ci koor gi am fi ñaar fukki fan ak juróom ci biir weeru koor bi mat fi ñetti fan bi ñu jullee kor yi nga xam fa la defalee xadar fa koree kon ñaata rakka la sëriñ ba julli ci Sànnoosi ci julli farata ak naafilay sunna loolu bari na kon loolu moo tax mu ni sëriñ Siré ak waa Sànna war nga sant yàlla tàbbi ngeen aljanna mu jël xam ñi nekk fi ñëpp ak ñi bokk ci Sànna ñoo ngi ci biir loole ba tax na moom la ñuy waajal mu juróom fanu koor gi ah wolof ñaa ngi nee nag liy duuf lépp xaju ci cin li benn yoon moo tax ñu ko junj rek xale koy àggale kon dañoo bëgg rek képp ko xam ne dégg nga woote bii na nga waaj te ñëw sa noosi juróomi fan ci koor gi man naa am mu tom te juróom-ñaari fan ci mois de avril wala juróom ñett fan ci mois de avril waaye juróom fan koor gi mooy bis bu mag bi kon ñu ngi ci woo bokk jullit yëpp di ci woo bokk taalibe yëpp su ma limee du ma mën a matal waaye li ñuy wax lépp wax nañ ko ba noppi kon daal maa ngi sant yàlla bu baax ci daje bi ñu daje bëkk démb ca sagata ci njiital euh, sous-préfet Aboubacry Sadiq Ndiaye di sous bu sagata ak euh, maire bu commune bu Colom Fall muy Abdou Assis Fall taxawaayam bu rafet ci Sarnosi ak yéenam ju baax ci Sarnosi ak maajoor fal ak mboolem ña wër ñëpp daayira ñu ngi leen di soññi lim nañu daayira yëpp ku ko dégg xam ne mooy sab soññee bis baa ngi noonu ñëw na na ñëpp teel a ñëw te ànd ak yar ànd ak teggin jëfe ko ni ko sëñ Tuubaa daan digle woon ñu jëfe ko noonee yàlla àggale suñu yéene jëpp yàlla fay na ci lu faaw ko suñu njort ci barke borom Tuubaa jërë ngeen auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu taala alayhi ginnaaw bi ñu santee yàlla sunu boroom di julli ci sangu sangi sangu sangi Seydina Muhammad ñoo ngi siyaar bu baax sëñ Muntaxa Mbàkke xalifatul am di siyaar bu baax nag suñu jëwriñ Alaaji Mbàkke yi fay di jëm ci bis boo xam ne nag mooy juróomi fani koor gi kan moo ko woote Mbay Njaay Sànnoosi ñi di ko defee ke Sànnoosi ma di ci woo ñëpp nag képp ko yor daayira walla yoruloo daayira war ngaa dem sànna ndax sànnkat ku déglu li leen Sëriñ Tuubaa wax jar na ñëpp dem sànna ndax ñëpp a bëgg a dem àjjana te foofu am na lu fi sëriñ bi wax ñu nekk sunu frère muy Mbay Njaay nekk ak moom ci jàmm ci jumaa ji nekk moom salaam kon su wéetee bis dañ ci ànd maa ngi woo fa daayira mën ne ak képp koo xam ne rek xam nga Mbay Njaay ci Masaalikul naan bëgg nañ nga ñëw sànn ci juróomi fani gi maa ngi woo ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon nag bés baa ngoog programme bi nag nii lay tëddee. bu nu xëyee ca sànn alxuraanul karim la ñuy jàng ku ne xam ne sëñ Bamba loo koy liggéeyal la ko daal taal mooy alxuraanul karim bu ñu xëyee huit heures di ko jàng ba midi daanay kaamil yi laf xat nu alxuraan ji ñu jëm ci lan nag xasaayit sëñ Tuubaa yi daayira fa daje yëpp di ko jëlante benn par benn daayira bu yéeg boo wàccee sa morom yéeg noonu lañ koy nekke ba tisbaar ñu jul tisbaar nag ku ne xam ne ne weeru koor lay doon weeru koor añ du am lan mooy am mise en place invité yi ñu waajal nag cérémonie officielle ba bu ñu demee ci cérémonie officielle ba ba jóge ca ña ca war a jël kàddu ay kilifa waxtaan ba pare dañuy waajal nag ndogu ya nga xam ne waa sànnaak man ndogu ndogu daal ku ko bëgg sànnoo si ngay dem ba tax na kon buñ jegee ca ndogu ya nag dañuy dellu suwaat nag ca tànt ba buñ dellu see waajalaat nag waxtaan wa waxtaan wa ci diggante Touba ak sëriñ Siré mooy thème bi ren bu ñu waxtaanee ba pare xasaay diiru siwaat nag daayira yi bu ñu nuppee kañu jox mi faane guddi ko bërset mooy alaaji Seex Sàll mi ñëpp xam ak ñi mu àndal kooku nag moo koy faane bërset sànnaa ngoog kon daal ak Mara kon daal bés baa ngoog kañ la juróomi fan ci weeru koor lu mu jël nag moo xam la sept la mbaa la huit mooy doon sànnoo si incha allahu taala ñu ngi ciy woo ñëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim jërë ngeen jëf